te xam nga am na ñoo xam ne dañu waxoon Sénégal dafa mosul une coupe du numéro Matar Ba mu ngi fii si sama numéro si sama téléphone bi kon xam nga ni kon am na loo xam ne yëngu naa si lu baax a baax parce que gëm naa ne mun nañ dem ba coupe sax coupe mooy monde bi sax mun na mun naa ñëw def parce que chaque année dinaa génne onze millions jin quinze nag sëdd la ko ci tam xarit yeeg tabaski yeeg korite yooyu salaamaaleykum euh, mbokki internetu Allô Sénégal euh, tey nag euh, ñoo ngi fi Thiès benn dëkk ñaari gaar fekk fi nag benn kilifa kilifa goo xam ni kenn dootu ko naatable fii ci Sénégal ndax ay baax-baaxam parce que du ci wàllum faj sax waaye wàllum social bi nga xam ni moo ngi koy def fii nga xam ni mooy Thiès rawatina partout dans le monde di jàppale nit ñi te yàlla tax. di faj ba pare di la mayaat xaalis di la jàppalewaat pour nga gën a mën a faju loolu ñu koy def ci sëriñ si raar na euh, dafay jàppale doomu aadama yi te xool ci intérêt ñu bàyyi ko rek mu présenté wu euh, mbokki internet yi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa adduna bi di nuyu waa euh, Madina Fall di rafetlu seen déplacement bi nga xam ne da ngeen déplacé ñëw seesi ma di ñaala kilifa diine ak kilifa aada yi. Mm-hmm. Euh, ñu rafet lu bu baax a baax a baax euh, li nga xam ni yaa ngi koy def ci réew mi ba tax na ñu ñu déplacé wu ñëw pour jësi la parce que nit ñi kat ñoo ñu ko doon laaj ndax sa social ndax li nga xam ni moom ngay def tey nag euh, ñu baaxoo rek. waxtaane li nga xam ni moom la Sénégal jël coupe bi ñu rafetlu ko lool loolu ñu ciy mën a wax tuuti rek ñu may ñu ko. waaw comme comme loo waxee xam nga man yàlla dafa def man yàlla dafa def dafa ma boole ay kilifa. Mm-hmm. parce que ministre yi ñu ngi fi wax numéro Matar Ba mu ngi fii si sama numéro si sama téléphone bi kon xam nga ni kon am na loo xam ne yëngu naa si lu baax a baax parce que ñoom xam naa leen bu baax ministres yi yëpp du moom kese. Mm-hmm. am na yeneen ministres yu yoo bëri yoo xam ne dañoo nekk si gouvernement bi dañuy ñëw si man déplacé dañuy ñëw si man pare ay guddi. Mm-hmm. dañuy sëkk leneen leneen leneen te li ma leen wax day day am. Mm-hmm. man nag damaa nekk koo xam ne waxoon naa commencement bi. comme bi ma seetee beneen vidéo bi di nga gis li ma si wax. wax naa man damaa gumul ñi nga xam dañuy toog di wax ku bii du fi musoon ñëw. yàgg naa ko wax. parce que lan moo tax parce que Sénégal ak ñeneen ñi yeneen réew yi presque ay nit lañ comme ñin rek. gëm-gëm boo ko amee lu mu mënta doon. tey boo gëmoon yow mii sax da ngaa war a tekki nga def si yéene nga def si lépp. yàlla da lay dimbali ba nga lool li nga war a tekki mu yàlla fekk si la si. nit ki ak li nga bëgg si la yàlla di jàppale. parce que lu gëm-gëm la te boo xoolee comme lu mu la ko xee yàlla def na ñoom équipe bi ñoom dana am gëm-gëm wa xam wa xam na ni. war nañ fexe ba Sénégal léegi indi fi coupe. te xam nga am na ñoo xam ne dañuy waxoon Sénégal dafa mosul indi coupe du indi coupe moom comme ay ay wax ko wax yu ne ko lu lan laa ko mën a jàppee daal mooy ñoom seen wax daal moo leen moo moo leen moo leen nii daal xam ne fu ñu koy teg daal kon loolu laa bëgg a wax. Mm-hmm. parce que nit. bu la yàlla mayee xam-xam nga am looy gis parce que ñun dañuy gis loo xam ne di ñëwagul dañuy gis lu ñëwagul dañuy ñun toog nu fii si internet bi rek dinu tëgu ay micro rek lu nekk lañ koy wax déedéet parce que comme loo man bu may tedd boobu amaguma ama musaguma génn si internet bu may tedd di may jox ay kër ñii di ma jox ay oto am na euh, année rek oto boo xam ne GEL la quatre-vingt-quinze millions lañ ko jëndee. ñaar lañ si jënd jox ma ko. Mm-hmm. ku tudd Mohamed boo xam ne États-Unis la nekk. parce que dafa nekkoon si ay xat-xat yu métti nekkoon si ay jaf-jaf yu métti ba yàlla def na. Mhm. li ma ko ñaala mu gis parce que koo xam ne dafa demoon bay bay di fanaan ay oto. Mhm. pourtant si YouTube la ma gisee. Mhm. ñu bëri dañuy wax a daje ko ki ñaanal nga gis. wante bu yàlla defee nga daje ki ñaanal nga gis. parce que jig la il nit jig la. te boo xoolee gis nga nit ki. lépp il lu ma am lu ma jig. ku nekk ak am na ku ko jig. parce que man mun naa gëm ni Macky Sall faraluma ko Sonko faraluma mun naa gëm ni moom moom jignuñu parce que jignu moo waral yàlla def mu toog mu indi kon loolu jigi ji loolu jig ak wërsëg day amaale parce que nit ki day am tolluwaay boo xam ne wërsëgam fu mu toll rek ak lii mm. yenn saa yi nga ànd nit koo xam ne guddi bi ci yéen a ànd mm. fekk sa wërsëg wërsëgam moo jig nga ànd mm-hmm. moom sa affaire du ubbeeku comme muntu doon bay xale bu ndaw sax mun nga ànd moom wërsëg bi di gën a yokk parce que wërsëg la boo xam ne da ànd nit ki di di la jig kon yenn saa yi da ngay ànd nit ki sax nga amoon problème muy sa soxna wala mooy keneen wala keneen nga jékki-jékki nga bàyyi ko nga fase ko nga jékki-jékki sa alal mel ni lu seey mm. loolu parce dafa yàlla da leen bind yéen ñaar ngeen bokkoo wërsëg ngeen bokk wërsëg moo tax yenn saa yi bu nit lu aawam sax wax nu sax ni ma koy gaaw a bàyyi parce wërsëg yi hmm. yenn saa yàlla day boole wërsëg yi am hmm. nit ki parce que am na ñoo xam ne bis bu yàlla defee nga toog a ñoom wala wala nga takk leen sa buntu wërsëg day gën a ubbeeku am na ñoo xam ne boo leen takkee sa buntu wërsëg day tëju hmm. wante lépp nag comme ni ma ko xee araamul nga seet nga xam kii ngay bëgg tàkk wala ki nga bëgg nekkal ba xam jig na loolu jigula parce que araamul parce que mu ngi ci téere yi kon moo tax ñin dañuy toog guddi bi ci dañ gis parce que gis nga euh, jour bi nga xam ne yàlla def na jour bi nga xam ne mooy euh, affaire bi di am mooy. Euh, nan coupe bi mhm. toog naa sama néeg biir di julli di ñaan. Mhm. pour parce que loolu la moo ma gënal. loolu moom mu amul dara sax dama bëgg. Sénégal yi nga xam ne yaakaar parce que xale yu ndaw ñu yaakaar mag ñu ñaaw am na ñoo xam ne dem na ba génn àdduna mus ñu xam leen mooy bànneex coupe kon tey bu yàlla defee fekte lii la suñu bànneex la parce que bu yàlla demee muy yàlla bu yàlla defee ba waa àdduna bi yëpp féetu ko ñi nga xam dañoo xulu woon ñoom ñëpp boolowaat nekkaat benn loolu gëm naa ni lu baax la mhm. fekkee sax dafa araam sa benn côté la ñuy wax wante baax na si loo xam ne day boole parce que dañuy wax dëgg mhm. buy fen bu yàq uh-huh. kon am na ñoo xam ne dunoo am na ñoo xam ne dunoo xolu woon seen xol naqari ni am ay ay am na ñoo xam ne am feebar boo xam ne cardiaque yoo xam ne booy seetaan eh, eh, affaire bi affaire fa dafa am fu mu la yóbbu boo xam ne boo amtu sa xel la mën ngaa daanu crise uh-huh, kon loolu lépp lu diis la uh-huh. ndax mbégte la kon bu la ko yàlla defee yàlla ñi ñaan ko mi nga xam ne dara texu ko mi nga xam ne moo yor lépp mi nga xam ne moom loolu lépp yàlla def ba indi ko coupe bi gëm naa ni mun nañ dem ba coupe sax coupe mooy monde bi sax mun na mun naa ñëw. ma ne dogguma la sax yàlla bu la dee dog comme ñoo ngi ci woon ci li nga xam ne moo nekkoon ci Sénégal bi nga xam moo jëloon coupe bi tey ñun ñëpp ñu kontaan ci en tant que jeune en tant que citoyen euh, mu nekk loo xam lu rafet la ñëpp ñu kontaan ci waaye tey nag euh, comme li ñu fi indi tamit euh, bokk na ci li nga xam ne mooy sa mën faj. Euh, dañ lay laaj rek parce que gis nañ ni nit ñi dañ fiy ran dañ fiy fees dell macha allah euh, yàlla na ci yàlla def jàmm ak salaam ndaxte nit ki nga xam ne day faj pare yëkkati xaalis del jox la ko xam nga ne kooku jafe na fii nga xam mooy suñu réew fii di Sénégal ñuy wax lan nga gën a mën a faj yow. waaw comme xam lu ma ko waxee xam nga man dafa am loo xam ne dama ko ñëkk mooy tumranke ak ñàq Mhm. bañ a yor dara sama yaay bañ a yor dara sama papa bañ a yor dara ñu nekk ci tumaranke ñu ba amatul dara. kooku bu la yàlla demee ba jox la xéewal il faut nga sédd ko ñi nga xam ne ñoo yaa leen tane. Mhm. mooy ki nga xam ne dafa néew doole nga jël alal alalam nga jàppale nga jël sa alal nga jàppale ko. Mhm. mooy man comme lu mu la ko xee. li ma mun a sonal wala li ma mun a jaaxal sama àdduna wala lu ma lii mooy ki ma war a jàppale ma yor ko di jàppal ma la. ki ma mun a dimbale ma li ma war laa dimbali te dimbali ma loolu moo ma mun a métti sama àdduna parce que tey bu may weetu sama néeg ñax boobu di ñaan yàlla sunu borom yi nga xam ne dara texu ko mu defaral ma te dama ko dikk ma ko mm. yàlla bis boo ma mayee alal mm. wala nga may ma xam-xam dinaa si jëfee ba nga gis ko parce que yenn saa yi nit ay nit ay nit lañ kese duñu duñu yeneen duñu leneen wante yenn saa yi nga nga am nga sañ-sañ mm-hmm. nga nekk si xat-xat mm. am nga sañ-sañ nga nekk si ay problème am nga sañ-sañ nga nekk si loo xam ne yoo xam ne wéet wóor na lii yàlla kese moo la ko mën a dindi nga wéet nga jàpp ba set nga julli nga ñaan yàlla mu mu tegg la lii te nga ñaan yàlla may ma lit nga ñaan ko wax ko yàlla bis boo ma mayee alalu nga may ma teraanga dinaa si jàppale sa jaam yi mm. parce que loolu loolu nekkul sax nekkul da ngay baab yàlla wala da nga koy da nga koy léegi wante sañ-sañ la parce que moom kese moo yor. Mm-hmm. nit ku ne ki nga xam ne moo yor. Mm-hmm. am nga sañ-sañ nga wax yàlla may ma lii wala diw. Mm-hmm. may ma lii bu ma may bu ma may lii dinaa defal lii ak lii lii kon loolu la rek moo tax bu may wéete loolu ñaan ko ba yàlla def loolu ñëw. kon dama si sant yàlla te dama koy gën a def. léegi nga gën a mën lan nga gën a mën sa wàllu liggéey. waa xam nga ñin waruñ toog di ndàmb. parce que du lépp lan yàlla may. Mhm. gis nga sëriñ yi gis nga moytu ma koo xam ne làmminam rek lay yor. surtout loolu bi du làmmin affaire la jëf la ñu mhm. di gis. waa toog man maa mun diw man maa mun lii man maa mun lii déedéet affaire bi loolu parce que fekk loolu gis nga yàlla sax. kumpa loo gis kumpa la yàlla sax kenn gisu ko ni kumpa la. dëgg la mhm. kon moo tax ni mun ko jaamu ni mun ko ragal. amaan na boo demee ba xam yàlla fi mu nekk xëy na sénégalais ni ñu amee fit xëy na mun na ko fekk foofu nii xam rek. Mhm. parce que mun na ko waxee parce moo tax lépp loo gis ku ump da la a moo tax sama galaaj kenn du ko wone mhm. kenn du ko gis. kenn du ko li parce man li may def ki ma ko sëkkal. moom mooy gis sama gallaaj mhm. moom laay ànd na ni dem gis galaaj yi. suñ ñëwee foofu tamit ci li nga wax dëgguma la sax mais il faut que seet internet yi nga xam ñoo ñuy seetaan tamit ñu bàyyi ci bu baax a baax ba tax na tey Sénégal bi nga xam ni tey moo jël coupe bi dafa war a dem coupe du monde te soo xoolee tamit ni coupe du monde euh, Afrique yëpp kenn mosu ko cee jël Sénégal bokk na ñi nga xam ne demoon na au moins sa bak euh, li nga xam moom mooy quart de finale 2002. Euh, tey nag euh, comme yow jeune marabout euh, est-ce que pare nga pour ñaanal suñu gaynde yi bu ñu demee coupe du monde ñu jël coupe du monde bi. waaw comme lu mu la ko xam nga ñin du ñu jóge ci bañ a ñaan parce que comme lu mu la ko waxee Matar Ba sama xarit la sama nit la. wax dëgg yàlla nit ku baax la daam Diop moo ma boolewoon ak moom. kon man li may wax am am na fu ma ko teg. te ñoom bu ma mënoo ma dara wala xamoo ma dara ñoom dinañ ma jooma dinañ ma jéem a ma a a jëflanteel. kon nationale bi am na ñoo xam ñëw nañ fii pour di ñaan si ñaan si. am na bëri na def naa si ay affaire man du fen ni ma naa toog di wax ni ma Matar Ba mu ngi sama numéro te loolu di sama téléphone te loolu du dëgg. kon nga tam si ay sarax man ko ma wante ba léegi du ma wax ko bi maa ko indi. Mhm, il faut mu leer Sénégalais yi ñaan naa. Mhm. parce que man damay ñaan yow da ngay ñaan xale be day ñaan kii day ñaan kii day ñaan xale yu ndaw yi day ñaan maire yi day ñaan ñëpp day ñaan parce que alal moolal du alal benn kenn du kenn. Mm-hmm. kon ña sëriñ yi bàyyi man naa fi indi ko fii kenn indi ko fi ku yàlla sunu boroom léegi looy wax kon mm-hmm. mooy ñaan ku nekk ñaan ku nekk sañ naa nag mm-hmm. ñaan parce que jullit ñaan dong mooy ngàndaayam boo ne nag li nga bëgg yàlla dalay si fekk si waaw léegi kon loo wax loo wax ci sëriñ ñi nga xam ne tey par exemple <laughs> ñoo nekk ci li nga xam mooy internet bi <laughs> di wax naka sudul noonu naan Sénégal du mës a jul ku bëgg yooyu kon loo wax ñooñu moo tax ma wax la gis nga kilifa bëggee mat kilifa dëgg-dëgg doo fen il faut ma wax loolu parce que kilifa. warul di wax di fen. kilifa balaa moo wax ndax xam ne li muy wax ëllëg bu buñ ko laajatee mu nekk benn kàddu. est-ce que tam du bëgg buzz tamit. buzz mooy lan buzz boo xam ne après da lay yàqal yàb la di la saaga di la wax ay wax yu ñaaw lan moo ko fi jar. dara jaru ko fi. waaye kon léegi nit ki lu tax. doomu aadama gis nga doomu aadama bu mu muntul doon mooy man mooy kenn nit amul lu dul personnalité am mm. nit amul lu dul dignité am nit amul lu dul kilifteewam mais est-ce que xam nga ni loolu noonu tax na euh, suñu int moo ko internet ñu ci baree bari gëmatuñ sëriñ parce que dañuy naan euh, sëriñ si dañuy toog ci télé internet ci ci internet bi di wax loo xam ne nag su noonu pour bëgg rek di nax doomu aadama parce que am na ñoo xam ne aussi dañ naan la damay def ay ay ay marabu à distance day nekk ba Europe ni la danga may envoyé xaalis ma defal loo xam ne di nga ko gis te duñ ko gis loolu loo ciy wax loolu am na xam nga comme loolu waxee gis nga lool am na gis nga man ñi toog waa àdduna bi toog sax wax ma ma ablaay xamul dara moo ma gën a Ablaye xam na dara parce que mu tax gis nga ki xam du yow yaa koy waxi ñii ñëw si yow ñoom ñoo da koy waxal parce que am naa fi ay audio yoo xam ne ba ma ko génnee fii àdduna tukki ay kilifa barke yeneen yàlla Muhammad ay kilifa yoo xam ne yi may ñaani ñuy gis ñi may ñaani ñuy gis ñi si teg seen bët loolu mooy affaire bi affaire bi gis nga xam nga tey moo wax loolu gis nga ñaan mm-hmm. ñaan moo doy waar parce que gis nga booy ñaanal comme ni ma ko waxee nga ñaanal fami famille moo gin nga ñaanal pare kenn kenn xam tax famille boo ñaanee famille ñett personnes yi bu ñu gisee ñoom dinañ xam yow mën nga boo ñaanee pare kenn kenn kenn kii xamul ba xam ñaanal naa la nga gis kii xamul xanaa ngeen ànd mu xamal ne la leer nag ah diw di ñaanal la ma ma gis nga doog a gëm waata ba tey mën naa mën li may mën ma ñaana la doo gis ma ñaana kii mu gis ma ñaanal ki mu gis ma ñaanal ki gis yow lan ngay gis yow da ngay jàpp ni man xaw ma dara wax da ngay wax xëy na li ma ñaan xëy na moo egsi wul si yow moo taxoon yow am nga sañ nga ni ah Ablaye xamul dara parce que li ma ñaanal gisul wante da xëy na parce que noonu la bi nekkul si loo xam ni da ngay si wax la mm-hmm. comme ni ma ko waxee parce que xam nga gis nga ñaan boo xam ne dafa dëggu boo xam ne dëgg moo ko lal boo xam ne instant lu wér la bukti loo xam ne Lamine moo ko lal mais Abdoulaye ci ci foofu laay euh, daggee rek di ñëwaat ci sama question yi parce que euh, li ñu waxo li ma waxoon rek laay waxaat parce que bi ñu ñëwee ci kër gi euh, dañu gis ni say mbokk rek nga fi teg muy mel ni rek ni yow danga nga ci fi nga fi jóge da nga fier ci say mbokk man am na almadi kër mm-hmm. am na wis foire kër mm-hmm. am um, te kër yoo xam ne lii naa koy tabax ba mu àgg fa am na fu nekk wante gis nga mën fu mu judd du ma ko boole leneen man nekkuma ñi nga xam ne yàlla dina may tuut ñuy beew di bañ a xeeb seen mbokk bañ a man lépp lu may am al lépp lu may def si sama mbokk laa ko njëkkee parce que sama yaay dama koo bëgg sama papa dama koo bëgg li waral ma bëgg leen ñoom it nekk taal bi seex ñu nekk koo xam ne waxtu du leen raw. def ci yow diine def ci man diine. Mhm. baax mhm. am am am diine. Mhm. loolu moo tax man ma ndaw leen. mais ab Ablaye ci côté boobu damay duggaat ci li nga wax parce que sama yaram bi sax moo ngi commencé daw dëgg yàlla lii ko dégg xam ne tey eh, wax nga lu am solo mais ci social. Ablaye da nga nekk nit ku baax Ablaye ku wax sax ni la ab Ablaye lii laa bëgg nga defal ko ko dégg da nga fi may ay kër. Ablaye di maye ay oto non cher internet il faut ñu wax ko tungu ne nag du teew ñuy nataal moo ko def moo tax ñu wax ko ki ko def nag aussi ki ko wax la bëgg di dëgg neexul wax dëgg yàlla da nga oyof. waa xam nga li nga wax dëgg la sax. parce que affaire bi sax def na ko pour ngistal. def na parce que chaque année dinaa génne onze millions jën quinze nag sëdd la ko ci tam xarit yeeg. tëbës ki yooyu. parce lu waral ma def ko nekku pour Ablaye gis leen ma yërmande bi ma am parce que sama yaay toloon na foofu. Mhm, te tamxarit jot. Mhm. amul lu mu defee tamxarit mu jël boolam di dem si ñeneen. ñu ko si jox ma koy gis affaire bi nekk sama xol mu marqué ma. kon tey bu ma demee ba yàlla may ma lool ma xam ni kon am na ñoo xam ni dañuy néew doole bul pour am ndawal sax. pour def ko ci seen seen jox seen njaboot. lekk. Ablaye Ablaye 3 milliards li may dégg tamit ndeysaan nga bëgg ndey defal oto loolu nga ko nëbb xam nga tamit nañu waxante dëgg rek wax nga ma sax ni bu ma ko wax mais il faut que ñu wax ko parce que lu ñu fàng tamit duñ ko jeex yaa ko def dañ koy wax. 3 milliards yi boo gisee ma def ko. Mhm. hôpital école juma dafa baax si réew day doxal réew. te gis nga fan yi am na benn koo xam ne sappoor la ndeysaan. Mhm. dafa ñëw si man. moo xam man Ablaye dafa am leneen lu ma metti te gis naa yow ngay defe social ñun dañuy yor mooy sab affaire oto yooyu mooy ambulance yi. Mm-hmm. yenn saa dañ say daj ay cas yoo xam ne day metti pour nga dem si hôpital ñu jël ko à charge sax day metti parce que boo taxawul xaal la jël. Mm-hmm. boo indi bu tombee yow yoroo pièce d'identité sax duñ la jël. Mm-hmm. mu nekk lu metti dangay sonn dañ lay fay seetaan ba lii xam na laa mujj def. jël 5 millions dem ba directeur bi foofu jël ko jox ko. ki nga xam ne mooy docteur bi moo ko cas bu mel ni lii bu amee. dem dee ma ko defal. man maa ko jox bind ay kayit yu leen defal ma ko ma ko cas bu am lii ku ñëw. Mhm. mu mel nii. Mhm. di bind ko. nga fayal ko ko parce que loolu parce que moom ma ko wax te moom ko parce que kook sappoor la day yëpp ay ñoo xam ne day def ay soog ak yooyu. Mhm. loolu la gis ba ñëw wax ma ko man ma jël loolu dem ba si hôpital yi def ko loolu. xam nga comme lu ma ko waxee xam ne dina am benn bis boo xam ne sax di ñëw sax parce nekkul loo xam ne dañ koy wane pour ngistal dañ koy wane pour ñi nga xam ne danoo yor ne du war see def lu baax parce que wax di def ni ko loolu moo tax ñuy wax mm. inshallah dinaa la woo am na xaalis boo xam ne dajal naa ko parce que comme noonu waxee gis na képp koo xam ne ñaanal naa la nga gis mm. boo ma fayee cent mille wala deux cent millions yi wala quatre-vingt yi si kees la jëm benn kees boo xam ne kees sociale la. boo xam ne si wàll ñi nga xam ne dañoo yor ordonnance ñi nga xam ne dañoo bëgg faju ñi nga xam ne dañoo uh, am problème dépasse foofu lay jëm. Mm-hmm. léegi moo tax képp koo xam ne ñaana naa la man man bañ naa loolu sax damay ñaana nit ki ba mu gis mu doog a fay man du ma fayoo. mu doon lu am solo. ñaana nit ki ba mu gis mu doog a fay. Mm-hmm. li nga may fay nag si laay jël. Mm-hmm. di si dimbali doomu aadama yi lu tuut bu mu amee lu mu tuuti doon. dégg naa aussi tamit koy seetal ko koy koy seetal sax wala nga koy ñaanal doo ko laaj prix danga naan ko loo ma jox rek baax na. ma xool la. Mhm. ñaanal la ba nga gis nga doo ko fay. te encore mhm. hôpital yooyu 3 milliards la dégg la. Mhm. sama nit ñi ñoo koy def. hôpital école juma la. yoo xam ne parce que am na am na koo xam ne benn tubaab boo xam ne boo ne ni borke ni borke ma MoneyGram ak Ria dafa am benn tubaab boo xam ne dama ko doon ñaanal ba mu wér dama dafa feebaroon feebar boo xam ne dem na fu nekk na ko kii saye benn tubaab boo xam ne. milliardaire mhm, dégg ngeen loolu lu am solo muy jox révélation am solo ngeen déglu ko bàyyi ko xel. parce que si doom taal yi nga xam ne ay daala xale yi ñoo koy wër. di jàng ku nekk xamal xamoo ban làmmiñ moo si am barke. ak ban bët moo si am barke. ak ban wàllu moo si toog ak ku xam ni yàlla da ko may. te mën naa am sax président bu fa nekk. lépp mën na si nekk. suuf suuf nag xale yooyu boo ko jëlee. am loo si def ku feebar ku muntu doon tànk ak met tànk ak yelu lu muntu doon boo si boolee dal càmmoñ juróom-ñaar sondel mhm. ak dal càmmoñ. Mhm. ak juróom-ñaar puso nga sangoo ko lépp lu nekk sa liggéey dina toj. Mhm. loolu laa defal tubaab te tubaab dem na Amérique dem na fu nekk pour faju di nu wax ko yow pare nga. moo tax damaa yónni yónni yónni lu ma jox ëpp na 500 millions damaa yónni ba ñu boole ko ma MoneyGram ak ak Western Union mënu ma see jot yeneen tur laa si mën a jot. macha allah mu déglu révélation rafet. def lu baax. Hmm. rek moo si am solo. kon moo tax tey bu ma demee ba instant nii parce que moom sax booleen na ma booleen na ma koo xam ne euh, benn euh, koo xam ne zone lii la koo xam ne nit ku ñu la boo ma boole moom ko pour ñoom dañ ma bëgg def Afrique benn hôpital boo xam ne ay bant la. ay eh, bant rek lay doon. bant kese max du ko lekk lii du ko lekk ñoom ñëw ma wax man la bant ay lépp bant la du tabax. lekk max du ko lekk. ndox du ko mënu dara te day dund te day yàgg te day rafet. gis nga gis nga wax dëgg yàlla li nga wax ni dëgguma la mais il faut que il faut que ma wax ak seen seen internautes yi sama caméraman jël ma parce gis nga lii nii dafa yombul. Euh, nekk maara nekk om social di jàppale doomu aadama yi dafa nekk loo xam ne yombul ci réew mi parce que da ngay gis maara yu ci bari dañuy nekk ci internet bi di wax di wax naka su noonu ba tax na sax am na ñoo xam ne tey euh, jomm nañoo dugg sax ci réseaux sociaux yi di wax mais nga la ñu bàyyi ko xel ndax nit la boo xam ne nit bu social la nit la boo xam ne nit buy jàppale doomu aadama yi la wax dëgg yàlla te loolu ñoo ngi la ciy ñaanal bu baax a baax a baax a baax tey nag euh, ñëwoon nañ fii seet la te biñ fi ñëwee tamit liñ fi gis mooy oyof gis nañ fi tamit lu ne gis nañ ci aussi say say say mbokk rek ñoo la dar kon moo ngi noonu yéen a koo gisandoo euh, ñu ñoo ko gisandoo képp koo xam ne am na problème wala képp koo xam ne tey amaana am nga bëgg ngaa takk soxna euh, boo ko woowee mu xool la seen biddiw ba xam méngoo na euh, lépp lu ci mënti nekk rek dinañ leen ko wax incha allah dinañ ko def si barre de écran bi incha allah yéen ñëpp ngeen mën cee jariñu ñu ñëpp ñu mën cee jariñu sax laay wax léegi sëñ bi dégg naa aussi tamit koor gi bañ na ko gaay Auchan yi dañ laa xàmmee. <laughs> waaw man parce que man damay jël comme li ma la ko waxee rek. valeur ay 3 millions 500 wala 4 millions dama ko jënd ay pañe yëpp koy jox mm. ay pañe ya di leen ko séddale mm. te encore ko wala ñaan bi encore man dama leen koy wax man du ñëpp laay ñaan ñi gis mm. dafa am ñoo xam ne wax dëgg yàlla di seen mbir fekkee quatre vingt fekkee cent pour cent pour cent yi dinañ sotti. cinq pour cinq pour cent yi mu dëgër may nekk si ba lii. Mm-hmm. parce que il faut nga xamal Sénégal yi di fi nekk. Mm-hmm. parce que bu leen fen bu leen wax loo xam ne doo ko def. Mm-hmm. mbir yi nekkul loo xam ne lu yomb la. ku sa wërsëg nekk. di si jot ku sa wër si nekkul nga xam ne nekku si te balaa loolu sax balaa may may jëflante yow bu ma xoolee sa mbir ma xam ne yow war naa lay jëflante ni jëflante bu ma waree jëflante yoo xam ne war ñu jëflante du la du la jëflante ah bu yow kon nga xool ma kon après nga xool nga xoolaale suñu caméraman bi daa bëgg a takk jabar waaw ba léegi amagul jabar wax naa ba soog waaye moo ngi noonu moo ngi noonu daal ak beneen beneen ay dara ay dara bi nekk suñu suñu suñu suñu kanam nii incha allah léegi comme euh, seen internet ñoo ngi woon fii fi nga xam ni tey euh, mooy Madina Fall euh, Thiès benn dëkk ñaari gaar bu leen fàtte aussi di liker di bës cloche de notification yi parce que yéenay tax ñu persévérer tey li nga xam loolu leen indiloon nag mooy ki nga xam ni mooy sëriñ bi nga xam ni tey mooy série bi nga xam tey euh, lépp lu muy social mais bala maa tëj rek dama doon tëj nag mais bala maa tëj dama gis ni dafa am koo xam ne dafa feebar ba nga xam ne ñoo xam ne sax wante xam nga comme lu ma la ko waxee man xawar ma état xawar ma kenn liis comme lu ma la ko waxee rek man dama bañ naa loo dama am seen kees loo xam ne lépp lu ma am rek foofu laa koy def ba keroog bu gisee lu mel noonu di dama si def li ma mën wàllu dem beek dikk bi nag il faut nga waxtaan si ay kilifa pour ñu mën ko yóbbu mu gën a mën a yomb visa beeg yooyu noonu mais kooku ba baa feebar bi tamit xawut a metti noonu ba du faj du fajub olof non du faj olof parce que da ko war a ay neer la neer yi Euh, neer yi ñoo war ñu opérer parce que neer yi moo tax du mën a tuur ndox mhm. benn encore day jeex encore parce que neer si bopp ñu am problème daal il faut ñu opérer ko ñu doog a budul loolu du mënoon lii daal yu bari daal da koy jafe parce que day mu tooga toogaa bi sax problème tëdd rek lay def waa léegi sëñ bi sa dernier moo comme que ñoo ngi suñu njeexitalu émission mhm. lii sama dernier mooy mooy comme li ma ko waxee adduna bi comme li ma la ko Sénégal mi benn réew la mhm. mooy Macky Sall mooy Sonko mooy keneen bu kenn taal suñu réew bu kenn xuloo ak ngaayoo ak yooyu amu fi sens mhm. parce que comme ni ko waxee gis nga ki war a nekk président wala ki ne war a yor nguur mhm. amul benn mbindeef bu mën a xañ na pour nga mën ci sa jot mooy Sonko mooy kenn Macky Sall bu jeexlee jeexal na day jóge fi Sonko bu ko waree jël da koy jël réew mi benn réewal te encore li may sant Macky Sall mooy mhm. ñun bañ ñu kenn duñ ko lii waat fekkee dafa bëgg toogaat dëgg dëgg il faut mu ubbi ay usines yu bari jox jeunes yi liggéey ñi nga xam ne dañuy agressé ñi nga xam ne dañuy gis seen yaay am problème gaz parce tey kenn neexul nga gis yaay mu am problème gaz wala mu am problème ndox wala mu am problème lii sa diine bëgg ko sa sa sa dëkk bëgg ko mhm. loolu nag lu ko fekkee loolu lépp buñ ko bañee mhm. mooy réew dafa am lu koy doxal lu koy doxal mooy ñi nga xam ne yàlla di jox doole mooy ñi nga nga xam ne ñoo jiitu mhm. il faut ñu yërëm askan bi il faut ñu yërëm jeunesse yi il faut ñu yërëm yi il faut ñu jàppale leen parce fii mhm. bañ ñun ku ñuy Macky bañ ko mhm. Sonko bañ ko ñin li ñu bëgg mooy gis nga Macky Sall bu ñu jàppalee ba ni ñi yëpp xol yëpp set si moom. dañ koy falaat bu ñu jàppale nag comme lu xam ne yaakaar nañ mën nañu kon am a baax lancé euh, yàlla def mu jot vidéo bi bu ko defee moom mu bàyyi xel. sama la sax Macky Sall sama la parce que Baaba Maal ak Macky Sall ay mbokk lan te Baaba Maal sama mbokk la moom parce que Malick Oumar Bayal ñooñ suñu mbokk la te ñoom ñëpp ay benn lan mun ma koo bañ mun ma koo lii xool ma si xaalis xool ma si dara lu may jox li ma gis si réew mi moom laay wax Macky Sall kenn bañu ko fii parce que nit du gis du doo gis sa mbokk di ko bañ nit kenn du la bañ sa jikko la bañ nit ki fekkee da nga am yërmande ñëpp xam ne yow am nga yërmande yaa ngi liggéey yaa ngi def mhm. yàlla xam na ni ki dul la dul la sax mhm. bañ a woteel mhm. lii ni ki ñuy bañ a woteel mooy ki nga xam ne du liggéey te day dikkee te du def parce comme lu nga gis nga kilifa du fen kilifa du rek lii kilifa du wax loo xam ne du ko dul loolu gis nga lool ku mu mënta doon boo ko boo si saxee loolu rek sa personnalité sa dignité du mos a deñ ah kon kon de kon dégg ngeen loolu kon ñun suñu terrain bi incha allah nañ ci jot ak suñu oto bi ndax kilifa comme ni nga ko waxee saa su ne rek ñoom suñu njeexatal émission jaajëf di la kontaanal bu baax a baax a baax ah, bi nga ba beneen émission incha allah jërëjëf